monsieur Seck Alassane Seck ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM tey ñu doore waxtaan wi ak Rëccum Boy Djiné kenn ci ñi ñu jàpp ne ñoo ko jàppale ngir mu mën a génn euh, foofa euh, nag daal faat boppam bu ñu sukkandikoo ci euh, lii di information yi te it autopsie bu ñu mujjee fësal confirmé na ne moom dafa xaru tey ji ban jàngat nga am ci mbir moomu. waaw xanaa di ko naqarlu rek naqarlu teewu xale bu ndaw hmm. pour boppam d' abord pour famille am loolu nekk na lu tiis xëy na mënoon a ñàkk parce que xëy na <laughs> eggu doon malheureusement loolu am na c' bu ba parce que ku ne gardé à vue comme ko commissaire de police yu bëri waxee démb ak barki démb hmm. waroo mën a nekk garde ba ngay mën a am jotu xaru hmm. naam li nga xaru nee nañ ci douche yi mais même loolu su amee tamit waroon am fu mu ndax xale bi defe wane wane loolu ca kaaf donc loolu lépp soo ko xoolee day naqar loolu xëy na Sénégal am na lu manqué lu bëree bari surtout ci ay garde à vue ci commissariat yi loolu moom war nañ ko xoolaat bu baax a baax après enquête administrative mm-hmm. pour xool fan la fay bi nekkoon loolu moom vraiment lu doy waar la et justement famille bi ñoom euh, ba tey gëmuñu ne seen doom dafa faat boppam euh, ñoom nee nañ dinañ indi benn contre expertise donte autopsie bi wane na ne euh, suicide la noo ko jàngatee loolu am na ci droit nag xam nga famille moom famille day am responsabilité boppam parce que ñoom ñoo yor seen doom ñoom ñoo am seen xelu bopp da nga leen may ñoom am na droit xool ku leen doy beneen médecin wala beneen chirurgien wala beneen médecin légiste hmm. mu xoolee leen loolu am nañ ci droit dama leen di may ñu xool ko comme ça dañu gën a dal xel ni dafa xaru woon mais nag amuñu droit rek loolu ngeen ñu wax mooy dëgg naam am nañ droit en tant que benn parti bi ñu xoolal ci leen bopp contre expertise loolu moom d'accord nañ ci bu baax a baax. monsieur Seck Dougoulette euh, yàgg nañ dégg nit yi nga xam ne nee nañu ñoo ci ay loxol yoon euh, teewul ñu dégg ca wet wane faatu nañu euh, ndax yéen ci seen diirub liggéey ci droits humains jot ngeen gis dossier yi ñu ciy topp ba mu sës def ay enquete situer responsabilité yi. naam noonu waaw malheureusement bëriwul Sénégal mosuma ko dégg sax à la limite dégguma ko parce que pour man su amee dee comme dee bu mel nii bi ci ëpp ci looy dégg moom mooy dafa am enquête administrative mooy cappaandaw ga ñu yóbbule réaffectation affecté la feneen loolaa ji dégg mais jotaguma dégg ci procès judiciaire ñu ne am na ku ñuy suivre ndax am na ku rayoon boppam ci benn kasso bëriwul lu ma koy dégg boog mosuma ko dégg donc loolu soo amee bon ce serait parce que yoon normal mooy déterminer kan mooy responsable bi. Mhm. malheureusement am na enquête administrative ci biir commissariat bi xëy ku ni moo xaw a néewal wala moo sàggane loolu da ay affectation réaffectation mais daal dégg nga ñu ne am jugement normal dans les règles de l'art après ay suicide déggaguma ko fenn waaw. waaw mais euh, kon yéen am ngeen ci part euh, bi nga xam ne nar ngeen ko taxawee tey ji ngir euh, ñooñu nga xam ne ñoo ci faatu ñu xam dëgg-dëgg anam gi ñu faatoo. waaw xam nga loolu mu nekk lu ñun amuñu la ñu ñun am fu ñu yem. Hmm. ñun am yem muy recommandé ak ñaan ñun état bi may nu benn doole pour ñu mën a intervenir lu dul nekk partie loolu ñuy wax partie civile. Mm-hmm. jàppale détenu jàppale famille yi ñooñu. Mm-hmm. mun mun ko wutale avocat. bu fàttalee léegi waa ligue sénégalaise am presque lu tolloog fukki avocat mhm. président bi avocat la Assane Dioma ak vice président bi Yare Fall mhm. donc wax la ne daal ñoo am na fu ñuy yem ci liggéey bi ndax euh, état moo am le droit régalien di mën a topp loolu teytu ko état boo ko ñu nag da koy da koy toujours dañ koy soññi ci loolu mhm. mais nag souvent duñ ci am li bëgg te mu nekk mënu def lu ñaan wax insister yuuxu lu ba léegi ñu ngi ci loolu moo tax ma nekk tey ci rajo bi di gi ak nii Boy Djiné ñu ne moom euh, dafa euh, dafay def grève de la faim jeudi ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi li tax mu def euh, mu daal di rëcc waaye it continuer di xiifal mooy ne liñ ko denc dafa yàgg te jugé ñu ko mu doon combat bi nga xam ne tamit bokk na souvent ci liñ leen ci dégg tey ñu bëggoon a xam ndax gis ngeen ci évolution. non malheureusement c' est vrai que dafa nekk bu di bu dëgër combat bu yàgg ndax loolu dafa am lu ñett ñett mbir yu ko laal mm-hmm. mbir mi jiitu bi moom mooy euh, li magistrat yi ak juge yi mm-hmm. manqué Sénégal par rapport ak population bi mm-hmm. nee nañu téeméer xayma ëpp na ñetti téeméeri magistrat yu manqué Sénégal par rapport ak population sénégalaise bi nekk nii on est presque seize millions d' habitants loolu mooy ñaareel bi mooy code procédure pénale dafa xewi ndax léegi dañ proposé woon ci euh, code procédure bi amoon 2016 bu ñuy limiter garde à vue euh, plutôt euh, détention préventive bu koy limiter dans le temps bu mu nekk lu nekk illimité mooy amul amul app dañ léegi dafa war a yem ñetti at maximum pour ku noxoon amoon na kaawu viol kaw crime rey nit kaw ay neneen jaay drogue kaawu ay li am léegi ni viol malheureusement boobu ak léegi adapté wuñu code bu bees boobu ci loi boobu ci situation Sénégal mm-hmm. ci affaire café yi mm-hmm. ñetteel bi mm-hmm. ñetteel bi moom mooy kaso yi dafa fees del del del il faut ñu ubbi loolu ñu waxoon euh, benn option mooy def bracelet électronique benn lam bu lay takkal di la surveiller wala bokk ñu yokk kaso yi gën a yaatu gën a leer gën a nekk kaso pour nit loolu yëpp nag mooy manquement yi am ba tax ni kaso bi tax na ba détention yi day yàgg lool lool te wax nañ ci ba tey ñun amagul ci fi mu nekk nii ndam Mm-hmm. tey jii euh, bracelet électronique yi nga xam ne euh, annoncé woon nañ ko ndax dina doon euh, gën a andi maanaam ci mbir mi lu mu yokk. waaw ah, loolu loolu lañ yaakaaroon de parce que bu ñu ko proposé ñun bi amee xaw na am xel ñaar mais état bi amagul moyen parce que bracelet électronique dafay jar alal yu bëree bari surtout soo ci bëggee am yu bëri donc dañ doon xaar état bi def ci jéego loi bi. ci mois de décembre bi passé mais ñu ngi xaar ñu ngi xaarandi ndax dina ñoom jot ndax bracelet boobu dina dimbali kaso yi bu baax a baax ñu mën ngeen wàññi nit ñi def leen ci ay takk leen ay lam di leen surveiller fu ñu loolu moom yaakaar naa ni lu baax a baax lay war a dëkk. monsieur Seck bu yàggul moom benn policier bi nga xam ne nee nañu ay xale. ñoo nekkoon ci oto ay xale yu ndaw nekk ci oto jékki-jékki euh, fël ko moom mu daal ci ñàkk bakkanam ci fan yooyu ñu gis ay réaction yu bari ci réseaux sociaux yi euh, ay nit yi nga xam ne takk der lañu di ñaawlu nee na ñu dégg ñu ci benn yoon euh, défenseur des droits humains yi ñu kaas te pourtant bu doon keneen lañ ko def muy takk der ni moo nekk ci oto bi mbir mi dina doon taxawee neneen non yaakaar naa nag demeewul noonu nit ñi nag day wax lu leen xalaat lu leen neex rek wax nga mooy wax sa xalaat <laughs> wax sa xalaat moom mën nga wax lu leen neex hmm. mais ñun mënu xàjjale ak se mënu xàjjale policier xam ne citoyen citoyen wala gendarme ak citoyen ordinaire civil mënul nekk hmm. parce que ñooñu ñëpp suñuy jarbaat lañu suñuy doom lañu ñu nekk jóge ci kër yi li am ba des kay moom mooy loolu accident la woon hmm. xale bu amoon amoon defoon imprudence mënul dawal jël oto jàmbur a tiir ku ko neex foofu lu tombé rek muy malheureusement mais ñun fa lañ constaté ni gisuñu Euh, rey boo xam ne daf ko daf ko tey daf ko délibérément dafa def erreur moom xale bi def loolu moo tax ñu gis ne pour ñun accident la comme li am tous les jours ah su nekk mu am accident ci dëkk ci tali bi dama ci mujj ak loolu pour man daal wax boo xam ne day wax bu pour gàkkal suñu der mais ñun suñu xalaat suñu xel doy na ñu xalaat ñu day jàppale nit nit nag mooy gendarme mooy alkaati mooy soldat mooy soldat ñëpp ay nit lañu ci loolu lañ mbiru ñaari tur yi euh, bu ay fan a euh, gis nañu organisation yi nuñ taxawee temm ngir nag gën leen a baare yoon bi ngir ñu gën fee am place euh, fii ci Sénégal ñoom nag ñu gis ne dañ leen a persécuté ci Sénégal ñu bindoon benn communiqué di ko fësal di ci wax anam gi nga xam ne Sénégal mm, noonu lañ leen di buntu xataale. mooy li ma la wax léegi rek xam nga nit ñu ba rek am ku nekk da nga xalaat lu la neex xam nga léegi Sénégal dafa neex rek lu la neex doo jógee wax wax lu la neex mais ñun ku nu ku soxal mooy nit ñun dañu yaroo Sénégal fi leen juddoo fi leen yaroo hmm. donc forcément ñun dañuy am même culture ñun même ak yi même aada même caada ak ñoo ñuy wax li ma xam daal moom mooy sunu gë suñu gëm-gëm mayuñu ñu jàppale góor jigéen. Hmm. dañ dañ jàppale nit a jàppale hmm. ku ñu war a bëgg a faat. loolu moom gëm nañ ko te loolu mooy suñu droit parce Sénégal constitution moo wax ni le droit à la vie mooy premier droit ci àddina. Mhm. droit à la bala nga ne naam nekk fa da nekk dund ba pare donc mun mun na seetaan ñuy rey nit. mais daal ay promotion góor jigéen kooku mësuñu ko xalaat. Mhm. ndax ndox de fi ñu juddoo fi ñu yaroo xalaatuñu loolu parce que xamuñu ko. donc loolu du nit ñi wax day wax pour jaxas ay xel. Mhm. wala pour lëndëmal nit ñi mais loolu mënul nekk lu xam ne mën a nekk boobu ba léegi ñoo ngi dégg njiitu réew mi mu ne dinañu taxawal ay dispositif yi nga xam ne euh, dina encadrer waaye it réguler euh, réseaux sociaux yi euh, wax ji yàgg ñu gis ne ministre gim fi teg gi yor wàllum économie numérique moom it mu ngi ciy taxaw farlu ci lool mu mel ni ca lañ jëm tey gis appel mu koy ñaawlu jàpp ngeen ne wala sax nan ngeen jàngatee justement projet boobu le bu dee teg nañ ko non malade pour man euh, sama xalaat ak sama éducation ak sama culture mm. ak sama tollu nii mm. man activité boo am ci àddina nit war na am encadrement lu mënti doon mm. encadrement bi dafa war a nekk nag dañ koy war a boole ci acteurs yi waa appel yooyu su leen boole woon ci acteurs ci réflexion bi ñu xalaat fàttandoo pour loi boobu mën a nekk loo xam ne mën na am juboo man daal ma ni dañ war a bàyyi ku nekk rek dafa lu la neex mais mbaat bu boobaa duñu euh, limiter lii di liberté d'expression bi non non man xam nga liberté d'expression nag du liberté d'insulter. Hmm. il faut aussi ñu bañ a bañ a naam Sénégal avancé na bu baax a baax mais di am ba des daal moom mooy euh, li ma xam man fi toll nii euh, gëm naa ni daal mën encadré encadrer lépp mais nag dañ ciy impliqué dañ nekk inclusif ñu impliqué ci acteurs yëpp. Hmm. ku nekk joxe sax xalaat dem discussion société civile presse bi ñoom ñi xam ne ñoo ci gën a intéressé wu ba ñu juboo ci mais pour man daal loolu moo jiitu inclusion ci ci réunion yi ak discussion yi ba pare mën a juboo nag. parce que loolu mënul ñàkk lépp luy liggéey dañ ci war a juboo bokk ko waxtaan ki xalaat ñoom ñëpp ensemble. kon daal ànd ngeen ci. bañoon na ko bañoon na ko naam gën ko bañ parce que xamuma pour l'instant lan la bind ci loi bi. Mm-hmm. mais daal pour man daal en tant que ak sama âge ma toll ni ak sama culture. Mm-hmm. ak sama éducation gëm naa daal activité nit mu mënti doon day am da war am règlement. monsieur mm-hmm. <laughs> Seck ñu jeexalee ak euh, euh, li nga xam ne mooy situation des droits humains fii ci Sénégal ñu nattee ñu natt ko weeru euh, mars ñu doore foofu gisoon nañ ne coow bëri woon na parce que ñoo ngi doon ne Sénégal ñoo ngi gis ne lii di droit d'expression day reculer liberté de de de des maanaam lii di droits humains day gën a dellu ginnaaw depuis booba ba tey bañ ci jógee am na ay manifestations yu am ci diggante bi am leneen ak leneen nan ngeen jàngatee. li nga xam ne mooy situation des droits humains fii ci Sénégal. waaw soo waxee léegi affaire droit à l' moom mooy manifeste pacifique mais loolu alhamdulilah suñu constaté fi mu nekk depuis mois de mars ba léegi affaire bi a yokk gën a yaatu c' est tant mieux. Mm-hmm. moom mooy war a am tey nii loolu mooy suñu xeex ñun tous les jours. Mm-hmm. état de droit dafay citoyen bu xam ne d' accordul ci li doxalee mu exprimer wu suñ ko bind ci constitution Sénégal. Mm-hmm. depuis 2001 donc loolu su a yokku. donc mais am na benn loolu ñuy wax addina bu parfait xam ne lépp normal amul fenn ci addina dañuy xeex ay con ay conquête la dañuy xeex di gagné di avancé di xeeb dool yi mais liñ am ba def daal moom mooy comme que loolu am na yéen ñëpp ñu gisandoo ko depuis mois de mars muy bàyyi nit ñi ñuy exprimer wu naam mooy la règle normalement exception moom maanaam li warul am moom mooy ñu tere ko. day mel ne comme liberté pour ñu tëj kaso nit rek dafa nekk loo xam lu wóor a wóor la ba pendant ay sept ans dem na bàyyi naa la dem dara moo moo nag tolloo ak loolu liberté d' expression liberté de circuler loolu lépp dafa nekk les règles normales pour pour la société humaine moo tax mm. nag su amulee su amulee rek kooku manquement la ci état bi loolu vraiment ñu koy constater di encourager état bi ku def bay ñu am seen liberté d' expression ci manifestation yi mu nekk des manifestations automatiquement libres et puis le reste moom ñu ngi loxo yàlla. monsieur Seck Alassane Seck ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay fay Elisabeth Diatta. ñu doon dalal Alassane Seck secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits humains merci beaucoup.